salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki euh, téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen euh, ziyaara di am mbégte ci euh, entretien boo xam ne moom la fa fas ànd ak Serigne Cheikh Fatma Mbacké ibnu Serigne Moustapha Bassirou nekk bindkat di gëstukat nekkit it informaticien ndax am na maîtrise am en informatique ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nekk bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy première promotion bi jot na bind ay livres yu bëri yoo xam ne mi ngi jëm ci yoon wi waaye nag ñu fas yéene seq ak moom waxtaan ci livre boo xam ne da koy door a bind ñu dëppee ko introduction à la Mouridia muy livre boo xam ne dafa jëm ci yoonu murit mu ciy leeral ni nga xam ne ñu bëree bëri war nañ koo xam wala ñi nga xam ne umpale woon nañ ko mën ci xam dara wala ñi nga xam ne dañuy gëstu mu jëm ci yoonu murit mu nekk lool buñ ci sukkandikoo danañ mën a xam lu bëree bëri ci yoon wi sëriñ bi euh, suñu laaj bi njëkk rek moom mooy lan moo tax introduction à la mouridia ci jamono bi salaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu di nuyu bokk yi ñuy topp di am mbégte ci euh, dalal gi ñu dalal euh, rawatina ñuy waxtaane téere bi nga xam ne mooy introduction à la mouridia di téere boo xam ne li tax ñu bind ko mooy dañoo gis ne euh, li ñu bind euh, li sëriñ bi bindal boppam kenn xamul nu mu toll ci arab la ko bind euh, te léegi bari na ñoo xam ne dañoo am yitte ci xam njàngalem sëriñ bi xam sëriñ bi mooy kan te dégguñu arab muy ci biir senegal muy ci bitti senegal Euh, bari ñoo xam ne itam euh, dañuy dégg yoonu murit di dégg dëkku Tuubaa bi euh, di dégg màggal gi loolu lépp yitteel leen ñu bëgg ci xam dara te ñu ci bari suñ ñëwee Tuubaa xëy na ku njëkk a yam rek dañ lay tàmbali laaj ci lan mooy yoonu murit kan mooy sëriñ bi su ko defee xëy na kuñ laaj rek version bi nga giseen saw giseen rek ngay mën a tontu loolu nag day indi duñ am message bu cohérent ci euh, ñi nga xam ne rawatina ñiy jóge bitim réew ñenn ñi sax di ay tubaab euh, suñ bëggee xam kan mooy sëriñ bi ak lan mooy am njàngaleem ñaare suñ yemee ci koo xam ne gisinam leerut wala bariwu ci xam-xam xëy na rek lam leen di tontu mooy la mu jàpp ci xelam loolu day tax ñu baree bari euh, la ñuy la ñuy gisee yoon wi ak euh, la ñuy jàpp ni mooy yoon wi léeg-léeg mu doon njuumte yu réer yi loolu nag moo tax ñu ne woon nañ euh, bind euh, ci tënk téere boo xam ne du rëy lool dana yomba jàng ñu def ci nataal yu bari ay photo itam def ko mu gàtt ndax 86 page 86 85 page la guddul su ko defee dana tax euh, ci français lañ ko defagul waaye incha allah bëgg nañ ko def ci anglais bëgg nañ ko def ci espagnol bëgg nañ ko def ci euh, yeneen làkk ngir ku bëgg a xam euh, ci njalbeen lan mooy yoonu murit kan histoire sëriñ bi xëy na danañ dellusiwaat ci li ci biir waaye daal jubluwaay bi mooy loolu mooy ab tënk boo xam ne dana yomba jàng te ku ko yër dana la mën a wax ci gàttal euh, lan mooy yoon wi kan mooy sëriñ bi loolu mooy jubluwaay bi. foofu mën nañ jàpp ne euh, dañoo bëgg gën a wasaare njàngaleem sëriñ Touba kenn ku ci nekk fa nga nekk ci sam réew ci sab làkk nga mën a xam dunduk sëriñ bi mu nekk loo xam ne tamit dañ koy sukkandiku ci lu wér. waaw noonu la euh, maanaam dañoo gis ne xëy na li sëriñ bi bindal boppam ci arab la ko bind ñu bari xëy na jàkku jànguñu làkk boobu. Euh, waaye itam euh, téere yi ñu bind ci sëriñ bi dëgg la am na yu ci nekk francais am na yu ci nekk yeneen langue euh, lu mel ne meneen bu baaxil xadim lu mel ne irwaaw nadim ak yeneen téere yoo xam ne bokk yi nekk rawdu rayaaxiin ak bokk yi gëstu bind nañ ko ci yoon wi bind ko ci Touba waaye léeg-léeg mën naa nekk téere yu xóot wala téere yu gudd yoo xam ne ki nga xam ne moom dafa bëgg ci lu gaaw rek xam li mënta ñàkk ñu xam ko ci yoon wi Euh, moo tax kon ñu bind téere bu gàtt boo xam ne euh, li li nit mënta ñàkk xam euh, ci yoon wi nga xam ne su ko xamee rek mooy xam na lu am solo lu bari loo xam ne mën na nekk comme tour wi ni mu ko wane rek introduction nga xam ne da koy dugal ci biir xam kan mooy sëñ xam kan mooy yoon wi su ko defee nag ci biir téere bi sax joxe nañ ci ay ay ay ay junju ak i yoo xam ne Euh, ku bëgg a xóotal nag danga mën a dem ci yeneen téere yi euh, yu gën a yu gën a gudd yu gën a yaatu ndax euh, suñ mébét moo doon loolu mooy koo xam ne xamugoo ci yoonu murit dara wala koo xam ne dëgg la da dugg ci yoon wi waaye xamagoo ci lu bari koo xam ne yàgg nga ci yoon wi ci nga juddu waaye am na lu ci ump lu bari ak ñiy gëstu ñi nga xam ne ay étudiants lañu ay universitaire euh, di def ay mémoire ay thèse di gëstu téere bi jàpp naa ne dana baax ci ñoom ngir ñu mën a am bunt boo xam ne euh, day ubbeeku ñu xam liñ mënta ñàkk xam su ko defee nag euh, ku ci bëgg xootal ku ci yem yaakaar naa ne lu am solo loo xam ne da ci am xam-xam boo xam ne mën na laa doy sëkk waaye ku bëgg a xóotal itam joxe nañ ci ay ay ay ay buntu ak i turi téere muy téere yu sëñ bindal boppam muy téere yu ñu bind ci moom nga xam ne ku bëgg a xóotal sa gëstu danga mën a dem ci yooyu itam ngir xóotal ko. mën nañu xam ci livre bi ñaanta partie nga ko def ak partie bu ci nekk nan lañ ko intitulé. waaw ñeenti xaaj euh, lañ ko def xaaj bu ci nekk xaaj bi ci jiitu ñu ngi ko tuddee euh, aperçu historique sur Cheikh Ahmadou Bamba euh, xaaj boobu liñ ci jublu mooy wane ci. jaar-jaari sëriñ bi ci tënk ndax euh, dunduk sëñ bi moom yaatu na yaatuwaay goo xam ne rëy na rëyaay goo xam ne euh, mënee su ko euh, lu ci nekk rek xaaj bu ci nekk rek ab téere la géej gi ab téere la yoonu gànnaar ab téere la ay cosaanam am jàngam digganteem ak Maam Mor Anta Sali xaside yi li mu bind loolu lépp rek lu ci nekk rek mat na ay téere waaye ci tënk nettali nañ ci xaaj bu njëkk boobu Euh, cosaani sëriñ bi euh, ñi ko meññi wax ci ñoom dara Mamour Anta Sali Soxna Jaara euh, wax am njàngam fi mu jànge li mu jàng yaatuwaayu xam-xamam wax itam sëriñ bi bi mu wootee wooteem bi ci boppam mooy lan yoonu murit ndax loolu bari na ñu nekk ci yoon wi ñaari soo leen laajee lan mooy yoonu murit wala lan mooy idéologie murit duñ la mën a tontu foofu indi nañ fi wax dëgg yàlla ay leeral yoo xam ne dana tax euh, ku fa dem danga xam lan mooy yoonu murit euh, su ko defee itam indi nañ fa digganteem ak tubaab yi ñi ko xam ne dañ ko exilé woon euh, jaar-jaar yi am ak ñoom yëpp indi nañ ci lu bari indi nañ ay témoignage ci ñu bind ci moom ñu wax ci moom rawatina ci jamonoom El Hadj Malick naari gànnaar yi Euh, tubaab yi ci boppam sax ñi nga xam ne euh, bind nañ ci moom def ay témoignages indi nañ ci dara euh, indi nañ ci itam ci xaaj bu njëkk boobu ginnaaw sëriñ bi yoonu murit ni mu wéyee ñi ko fi wutu di ay xalifaam li ñu liggéey kenn ku nekk tudd nañ la wax lenn ci li nga liggéey xëy na kenn ku nekk ni ma ko waxee mat na ay téere sa dund sa sa liggéey kenn ku ne mat na ay téere mu jabar sëriñ Tuubaa ku ne xam na ne kenn ku nekk sa dund ak sa liggéey mat na ay téere Euh, moo tax kenn ku nekk indi nañ dara rek ci ci ngir mu nekk ay junj waaye bi yemuñ ci itam dañoo wane ne yoonu murit naam euh, saa su nekk day am koo xam ne mooy Serigne Touba moo fi wuutu Serigne Touba moo fi nekkal Serigne Touba waaye nag naka jekk yoon wi euh, day sëñ bi ni mu ko nosee dafa nekk lu décentralisé nga xam ne seex yi ni mu leen daan seexale kenn ku ne mu yebal la ci barab lam def ci yow nga koy def ci ñeneen. di yaatal njàngaleem di yaatal euh, liggéeyam euh, njabootam ngi ci boppam ay doomam euh, kon seex yi wax nañ ci ñoom ab tënk loo xam ne dinañ tudd yenn ci ñoom xëy ñu bari sax ci ñoom waaye am nañu tudd ngi nekk ay junj wax taxawaay bi ñu am ci yoon wi waaye itam lenn ci kilifa yoon wi nga xam ne marqué nañu histoire yoon wi ci seeni liggéey ci ci amal njariñ yoon wi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ku ne gis na lim liggéey ci xam-xam ci ay école lim fi taxawal sëñ Modou Bousso kenn ku ne gis na ci wàllu social wàllu santé lim lim lim def sëñ Moustapha Bachir sëñ Mbacke Madina euh, sëñ Moustapha Bachir wax nañ daaray Poroxaan jeeg lim fi liggéey ci jamono sëriñ Abdou Lahad euh, sëñ Mbacke Madina wax nañ euh, ni meloon jëfam jikkoom yu rafet ak ñeneen ak ñeneen su ko defee loolu lépp dañ ci jublu nit ñi xam ne yoonu murit Euh, dëgg la day am ku fi nekkal Serigne Touba nekkub xalifaam waaye euh, am na ñoo xam ne ràññiku nañ ci itam nekkuñ xalifa naam waaye ràññiku nañ ci seen jëf te loolu day wane ne kon jëf rek mooy li li Baye Fall yi wax jëfa takku jëf rek mooy li am solo kon loolu itam euh, ab junj la ci biir téere bi loolu daal mooy xaaj bu njëkk bi. Mhm. kon wax nga introduction à la Mouridia xanaa kon danañ danañ danañ xaar développement wala livre bi ci lay yem wala mën nañ xaar yeneen. waaw lii li ma ko waxee rek jubluwaay bi mooy mu nekk introduction waaye effectivement am nañ ay mébét ci bind ay téere yu gën a yoo xam ne dana gën a yaatal ndax euh, su ma su ma waxee ñaareelu xaaj bi euh, ci téere bi mu ngi jëm ci la legs de Cheikh Ahmadou Bamba maanaam lim lim ñu bàyyeel ci njàngale euh, Cheikh Ahmadou Bamba l'homme de la non ki nga xam ne jàmm rek ci la doon dox léppam Cheikh Ahmadou Bamba ak tasawuf Cheikh Ahmadou Bamba Euh, ak euh, bennoog jullit ñi Cheikh Ahmadou Bamba li mu liggéey ci gëddaal der bu ñuul gëddaal nit ku ñuul loolu lépp mooy euh, legu Cheikh Ahmadou Bamba lim ñu lim ñu bàyyeel nga xam ne moom la ñu war a sàmm loolu wax nañ ci loolu introduction lañ ci def waaye ku ne xam na ne lu ñu war a mën a gën a yaatal la ci troisième partie bi défi et perspective de la Mouridiyya loolu ku ne xam na ne moom it lu ama ama am solo la muy Euh, li ci jéego yi ñu war a jéeguwaat ci suñ kanam ndax yoon bi dëgg la li ñu dox ci diir bu gàtt euh, wax dëgg yàlla yéem na ku nekk yéem na ku nekk ndax euh, soo seetee dëkk bu mel ne Touba dëkk yi maaseel yépp moo leen ëpp ay yooni yooni yoon ci wàllu superficie ci wàllu population ci wàllu développement yi mu maaseel yépp moo leen ëpp ci àdduna bi nag lañ lay lay wax kon loolu lu yéeme yéeme la dox bu gaaw la waaye nag téewul am nañ ay jéego yu ñu war a gën a def ndax luy dox la mbirum sëriñ Tuubaa luy dox la luy jëm ci kanam la kon nag wane naa fi ay jéego yu ñu war a def ci njàng mi te loolu junj naa sax liggéeyub Cheikh Mahamadou Muntaxa bi ci euh, projet complexe euh, Cheikh Ahmadoul Khadim bi ci Touba wane naa ne buntu la ci indi solution ci défi yi ñu am ci wàllu jàng ak jàngale formation ci wàllu culture ci wàllu même tasaare njàngaleem Serigne Touba am nañ ci defi lii ab jéego la ci muy téere bi introduction à la mouridiyya ni ma ko waxee jublu nañ ci tubaab yeeg ñiy gëstoon ñëpp mën cee jànge dara waaye ku ne xam na ne dese nañ lu baree bari ci liggéey ci fexe ba njàngaleem sëriñ Touba euh, ab italien ab espagnol ku nekk Russie ku nekk Amérique man cee jot xam kan mooy sëriñ bi ku nekk Afrique ndax Afrique euh, ñoom ñëpp am nañ euh, ay gag te ki leen mën a gàggant ki leen mën a teg ci yoon ki leen mën a tax ñu jariñu mooy Cheikh Ahmadou Bamba kon nag euh, ñun ñëpp ci yoonu murit am nañ liggéey bu rëy bu nekk suñ kanam moo tax ma def chapitre boobu tuddee ko défi et perspective euh, wane naa ci itam ne yoonu murit solution la ci indi développement Sénégal waaye sax indi développement Afrique kon loolu itam ay défi la yoo xam ne suñ ko jàngatee danañ ko gën a mën a xóotal kon loolu lépp ni nga ko waxee Euh, lii yëpp ay introduction laa ci def indi ci ay joxoñ ak junj muy lu am njariñ loo xam ne euh, jàpp naa ne euh, sama mébét mooy xootal ko nag ci téere yu gën a mag téere yu gën a kawe su ko defee développement boobu ngay wax ci ma développe lu ci nekk ci ci ay ay ay parti ngir mu gën a yaatu incha allah loolu ci suñu projet la bokk. ñu ñëw ci benn point boo laal sànq muy développement yaakaar naa réew bu ci nekk. développement nga bëgg euh, tey it saa su ne yaa ngi teg ay stratégie ngir développer sa réew te jàpp nga ne euh, Serigne Touba wala mouridisme war na mën a développer Sénégal wala Afrique loolu su fekkente ne am nga réponse boo ci joxee lan lay doon ndax gis dafa mel ni euh, interrogation nga ci def maanaam ab laaj nga def ndax murid yoonu murid war na mën développer Sénégal wala Afrique loolu tey ñun laaj na laaj bi ndax da nga ci apporter réponse waaw réponse bi ma ci apporté waaw waaw lay doon su dee su dee lu gàtt rek waaw lay doon ndax li tax ma wax ko mooy gis nañ ne Sénégal ci réew mu sous-développé lañ nekk gis nañ ne euh, li sëriñ tubaa jàngale ak li mu wane ci pratique nga xam ne moom du doon njàngaleem théorie kese rek njàng njàngaleem yépp day doon loo xam ne da nga ciy teg sa loxo mu jëf loo ko nit ñi ay taalibeem ñu jëf ko gis ay résultat te loolu firnde bi ma ciy joxe mooy euh, ku ne xam na ne suñ réew yi Afrique yi ñu ci bari ci aide au développement la ñuy sukkandiku seen seen développement yépp ci ndimbal yu jóge bitim réew daanaka lañ ko bëgg a tabax te depuis 1960 muy juróom fukki at ak nàngam euh, juróom benn fukki at sax lay wax euh, ci loolu la ñuy jéem a tabax suñ développement muy tàllal loxo tubaab yi taawal tàllal loxo pays occidentaux yi pays développés yi ngir ñu jàppale ñu ñu def développé te ba léegi mënuñu fexe ba développé xam nga loolu kon essayé nañ loolu te doxut waaye ñu ngi ci wéy rek nuur ci euh, lu ñuy def rek projet bu mën a doon dañuy xaar bitim réew financé ñu wala nàngam wala ndimbal yu jóge bitim réew loolu nag ku ne xam na ne mënuñoo développé suñu réew ci loolu Sëriñ Tuubaa nag jàngaloon nañu euh, bi muy tabax bi mu bëggee bi mu tabaxee jumaay njaareem ji ba noppi bëgg a tàmbali tabax jumaay Tuubaa dafa sasoon taalibeem yi kenn ku ne na su dee mag na joxe ñaar fukk ak juróom-ñett su dee euh, tout tànk juróom-ñetti dërëm ci jamono jooju lu lu xawoon a takku la bi ko taalibe yi dajalee bañ ñëw da leen a woolu ne leen li ma leen dajale loon te dajale ngeen ko li ma ci jublu nag mooy su fekkoonte ne dama euh, bëgg wut ñu ma ko tabaxal danañ ma ko danañ ma ko tabaxal boobu mi ngi junj tubaab yi par exemple ndax tubaab yi booba Afrique ñoom rek ñoo fi mën a tabax projet bu toll noonu ñoo fi am moyens yi ñoo fi am te booba itam ñoom jaar-jaar ji ñu am ak Serigne Touba tooñ ko génne ko réew mi exile ko dem nañ ba bëgg a réccu loolu ndax xam nañ ne ñoo ko tooñ dem nañ ba bëgg a jubóog moom di ko di ko xaw a mel ni koy xaw a neexal euh, lu baree bari ci euh, di ko wan ko daal euh, léegi bëgg nañoo jubóog moom ndax dem nañ ba mën xam nañ ni mënuluñ ko dara xam nañ ni ñoo ko tooñ Euh, ñuy jéem a rëccantiku kon mu wax ne euh, su ma leen ko santoon euh, ñoom duñ ko gëmee danañ ma ko defal waaye nag dama bëgg yéen sama ñooñ ma defloo leen ko ndax dama bëgg itam ngeen jànge ci ne lu ngeen bëgg a defatil seen bopp na ngeen sukkandiku ci seen bopp bu leen sukkandiku ci lu leen ab jàmbur di defal ndax ku leen defal ku leen mënal sañal leen te ku leen sañal mën na leen yóbbu ci loo xam ne dana jalgati seen diine dana jalgati seen ngor kon dee leen sukkandiku ci seen bopp lu ngeen bëgg a def dee leen ko sukkandiku ci seen seen seen seen seen man-man ak seen pas-pasu bopp loolu nag di am jàngale mu rëy moo xam ne au delà wàllu diine sax africain yépp dañ cee war a jàngane kon kat développement dañ ko war a sukkandiku ci sa sa bopp muy développement endogène boo xam ne yow yaay xalaat say soxla xalaat say man-man euh, ku dimbale dëgg la fekk la ci Euh, wàññiwu dara waaye yow na nga sukkandiku ci sa bopp ba kenn du la euh, diri di la xëcc di la yóbbu foo xam ne léegi léeg doo fa bëgg doo ko bëgg te preuve bi mooy euh, aide au yooyu ñu ngi jéem a imposer ay ay ay ay valeurs yoo xam ne du suñuy valeur lu mel ni ay affaire ngóor jigéen xam nañ ne réew yu tubaab ñoom ñu ngi koy daganal ak di ko di ko di ko di ko fésal ñu ngi def lépp pour àdduna bi yëpp fekk leen si loolu nag suñ réew yi suñ yeexee danañ ñu jéem a imposer ndax soo leen deeñ tàllal loxo di leen ñaan ñoom it ñu ñu jéem laa imposer seeni valeur ne la ah defal ñu lii yow itam daganalal lii wala bàyyi lii wala defal lii loolu nag ngir moytu ko nañuy sukkandiku suñ bopp te loolu Serigne Touba jàngale woon na ko bu yàgg kon loolu rek misaal la ci ne njàngalem Serigne Touba euh, suñ ko toppee euh, danañu mën a may développement te euh, liñ naan wedd gis bokk ci itam mooy taalibeem yi Euh, ci Afrique li naan ay ay entrepreneur ay homme d'affaires euh, ay self-made loolu lépp euh, foo ko xool ci njabootu Serigne tubaak ci ay taalibeem gis ko ci ñoo xam ne dañuy tàmbalee ci lu néew dem ba nekk milliardaire réew mi li fi ëpp ci ay milliardaires borom bi alal ñi ŋànk réew mi muy transport muy mbay mi muy industrie bi muy agro alimentaire li ci ëpp ci ñi ci gën a ràññeeku muy commerce euh, taalibe Serigne Touba lañ te loolu nag du hasard euh, mooy dañoo sukkandiku euh, seen lépp li ci ëpp ci njàngalem Serigne Touba ak philosophie am ak nangoo liggéey boole liggéey ak jaamu yàlla waaye loo am nga delloo ko ci yàlla loolu luñ am moo leen ko may te loolu suñ ko généraliser woon ñëpp roy ko ñëpp jànge ci tànqe foofu ci Serigne Touba jàpp naa ne Sénégal waaye waxuma la Sénégal waaye Afrique yëpp. mën nañoo développé ci njàngaleem Serigne Touba moom loolu misaal rek la ak junj. waaw sëñ bi xam naa dernière question muy euh, livre bi ban maison d'édition moo ko publier ak euh, ku ko bëgg fan lay jaar ba mën ci am. waaw jërëjëf sëñ Fallou euh, livre bi maison d'édition Daarul Himma ñoo ko ñoo ko édité man sama maison d'édition la donc maison d'édition la boo xam ne dañuy liggéey ak borom xam-xam yeeg bindkat yi di leen publier seen i seen i seen i seen i mbind. moo taxit man bi ma bindee maison d'édition boobu euh, nga xam ne maa ko jiite moo ko moo ko publier euh, livre bi am na ci fi ñuy barab yi ñuy weccee téere yëpp fu mel ni ci Dakar euh, man am na chaine de dis chaine de de librairie islamique bu tudd Bëgg Touba ay librairie la yoo xam ne Bëgg Touba laa ko tuddee nga xam ne dañuy jaay ay dañuy wecc ay xasida ay téere ku fa dem am na fa Masalikul Jinaan am na fa benn waaye marché Njaareem am na fa Touba gi Euh, bëgg Touba am na fi am na Daaru Minan ci polyclinique Maam Jaaratulaa euh, am na itam ci euh, yoonu Daaru Manaan sooy dugg Touba soo bala nga àgg ci banque islamique ñeneen ñi wecc téere itam ci tuubaa ak ci Dakar am am nañ ko muy sëñ Mahamadan Sey Baye sëriñ Lay ak ñeneen ñi su dee Dakar ñiy wecc téere yi librairie islamique yëpp ñoom it am nañ ko kon daal loolu mooy fiñ ko mën a fiñ ko mën a amee yéen kàddu ngay tëjee waxtaan waaw li may tëjee rek mooy sant leen gërëm leen te rafetlu lii ngeen def muy euh, lii ñuy sonne ci di ko tasaare njàngaleem sëriñ Touba euh, ci ay mbind yéen itam ngeen jàpp ci ngir mu gën a mën a tasaaroo nit ñi gën ko xam ndax suñ ko bindoon euh, génne ko te kenn xamu ko kenn jariñoowu ko itam daanaka coono lay doon boo xam ne rek day mujj tàyyelloo wala yokk yokk yokk yokk yokkeetloo te loolu yaakaar naa lii ngeen def. bokk na ci li tax nit ñi xam téere bi euh, man koo fàggu man koo yër man koo jariñoo te loolu nag mooy li ci ëpp solo jariñoo li nekk ci biir loolu mooy li ci ëpp solo te euh, yéen a ngi ci bay seen waar ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di euh, sant bu baax bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale di ñu encouragé di rafetlu seen taxawaay ndax lii ñuy jéem a ñoog ñoogi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam ci wàllu mbind bokki taalibe yi wax dëgg yàlla ñu ngi ci bay seen waar ci di ñu ci jàppale ci kàddu yu rafet ci di fàggu téere yi euh, wax dëgg yàlla muy loo xam ne am na ñoo xam ne sax dañ ci fàggu ay lim di ko maye di ko séddale euh, seen yeneen bokki taalibe wala bokk ñoo xam ne bëgg nañ ñu xam yoon wi ndax loolu itam bokk na ci liggéeyal Serigne Touba maanaam fàggu téere yu mel nii ak yeneen di ko jox ñoo xam ne ay jullit lañ wala ñoo xam ne bëgg nañoo bëgg nga ñu xam yoon wi bëgg bëgg nga ñu xam njàngaleem Serigne Touba Euh, nga di leen ko jox loolu liggéey Serigne Touba gënu ko rëy kon ñu ngi ci sant mbokki taalibe yëpp. jërëjëf euh, Serigne Cheikh Fatma Mbacke ibnu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ci leer li nga xam ne def nga ko ci livre bi nga xam ne moom nga bind. muy introduction à la Mouridia di livre bu am solo boo xamante ni li nga ci leeral lépp nekk na lool euh, ku ci nekk war nga ko xam muy kuy murit mu doon muy ku doonul murit mu ba ci ñi nga xam ne sax duñu ay jullit waaye di gëstu euh, jëmale ci yoonu murit mu nekk lu bëree bëri loo xamante nii am na solo lool kon euh, nekk na livre boo xam ne ku ne war nga ko mën a am ngir liñ ci def nekk na lool lu am solo lool la te it euh, sukkandiku ci mbindum Cheikhul Khadim ñu def ko nag en français ni ko sëñ bi leerlee nee na daañu ko def ci yeneen i langue incha allah ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci leeral yi di leen sant yéen it ci bàyyi xel gi ngeen doon bàyyi xel wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.